الحمد والشكر والعرفان mi salmini almuɓɓi awluɓe rasulullahi yimoɓe enen beltini julɓi mi salmini sohnaɓe men moƴƴuɓe ummahatul muminine en ɓe ganduɗa ngamata kala ko l'islam nodda kañumen ko notiɓe on jarama jama hande o jama hande o ko jama mawɗo jamma hannde o ko jamma seydi cheikh amadou tijani en jetti e allah noon cogguɗo en addi en haa ɗo e zawi cheikh omarul fouti en jettini allah gonɗo sababu haa ngarɗen ɗo mbele men dañka dañete ko e jammo ceerno men ceerno hamidou atmane ɓurɗandirede ceerno yeraɓan to kuñikaari o jarama yo allah yoɓ seydi cheikh amadou tijani hannde ko jamma makko hande ko qat mille koko suuɗa garaɗ cuuɗaɗo hay goto anda ɗum meeɗa ɗum yiidi jograni ɗum yiidi siwan nabi siwana rasulullahi tan e cheikh tidiani kolla ɗum oɗo garat ma wara ahu wara ala yeesa garat oɗo to bangge waliyagal garat arta yeeso mum sikki ala hen o jamma hatmiyo o ɓenni ay hatmiyo ɗum ko takkanede garade mo ganduɗa ko ɗo waliyagal haaɗi ɗum ko ñande sappo e ɗiɗi haran lewru men nduɗo no gonɗen ñande sappo e mum ɗiɗi sappo e ɗiɗi haran lewru ma e ndu ko nden o dañi hatmiya hatmiya noon ko hande jamma hande o o fiilana ɗum e tawtorede almudo makka biteɗo aliyu harasim al barrada rokka ɗum kala birduɗo salatul fati sikke ala rasulullah ene tawe kala cikkitiɗe hen ene wayno tijani ma ene manki oɗo joom jamma hande o jeeyaka aynu maadi aynu maadi ko wuro mabɓe wona wuro ngeɓe tawi tan no hoɗaɓe koɗi ɗon ala kamɓe cosi wuro ngo ta ni ko nayi ɓiiji sosi wuro ngo aynu maadi oɗo woni seydi chahamou tijani denɗo qur'ana law o dokkade salatul ma fati lima ohligo to e kape wuro witego abou samhun abi samhun e kasuru makko o halwo makko mbo ɓooyi oɗon tottade salatul fati yagza tan pinal nelaɗalla jungge jungu rokkimo definimo gila nden ha joni nden radio ala télé ala audio ala ala baɗanomo commentaire kono lawol ngol ene lolla tan ne yaha tan kala biraɗo falongol tan jana kangol ngol ɓenna lawol seydi chahmat tijani radiallahu taala an o feeñi aduna ko amo naqsin ujunere e temedere e capanɗe joyyi taw rasulullah dañi ferg mum yaarama duubi ujunere e temedere e capanɗe joyyi ko ndeno feeñe aduna kanko oɗo ba makko wiyete mouhamadoul mouhtar bun salim ibne abil id bun salim ibne ahmoud almoulaqab bil alawani on woni ba makka kana alima wari an muttabi an lissunna mudarrisan zakira bamu seydi cheikh ahmad tijani yummakko wiyete ko aissa nene makko wiite ko aicha debbo moƴƴo debbo moƴƴo tan jibinta ɓiɗɗo moƴƴo hande noon allah soggi en addi en ɗo wona diɗe ara noon wona no ko ko dañi tan wona ma allah yiɗanma tan jamma o soggu ma gara hen keeɓa ko heɓete ko hen oɗo jamma hande saabu kala jooɗiɗo malkisaka la yashqa bihim jalisuhum kala jooɗiɗe men malkisaka a wirdi a wirdani a inni allah a innani a wi amin a wiyani amin a malama ɗum ko nelaɗo allah wi noon walla ulaika qawmum la yashqa bihim jalisuhum garɗo wirte beddo tan jooɗiɗo ene nana daɗe men malama yaafama mi haalani enen jooɗiɓe ɗo e nder enen mbirde salatul fatilima ohlik bandiraɓe on jaarama imam bacci ndiaye jara jëf cheikh tidiane ndoy jara ngeen jëf ablaye bari on jaarama de ceerno tall kala no nodda kon tawabi on soxna bi kono kala ko ene cheikh di cheikh tijani jettiren dum kam cheikh umrul fouti walla kanko fooɗani en ɗum o addani en haa ha cheikh tijani oumar jobon jaarama ceerno samba diag dalifor on jarama ay cheikh umarul fouti cierna cierna yaraban ko jaarama ay nde ɗo deftere wiyete ko nasmul mouhtasar fi sirati cheikhu oumar kanko fi ɗum ceerno yero ay ko yimatena ko ɗo nane ceerno amon dongo haalni on kanko fira kanko kanko fi ɗum e defte goɗɗe yo almuɓɓi naftoro e duuji goɗɗi ceekɗi aada bandiraɓe julɓi ay nde ɗo deftere omba haala hen haala cheikh oumar nde feeñe aduna ɗe rewda ɗe janggi qur'ana e janginɓi ɗum alqur'ana holo heɓi laawol ngol holo tottuɗomo laawol ngol ɗum ɗo fof nene nde ɗo deftere miladuhu kanat lahu karama jibinede cheikh omarul fouti gonɗo sababu ha mbawɗen wirdude salatul fati feeñ ndeɓe aduna ñando jibinte karama tedduli kewɗe dañama hen haqiqa tun ne woodi sahiratu no lolli asim no mawni aduna o foof ñande hen fi tisiwol isrine min badil isha fi shahrina shaban yawma larbia nawgase jeenayi caggal gueeƴi ene hawre e ñalawma alarba nawgas e jeenayi lewru yaawa seydi chahma tijani njool fuutu kanko woni njool fuutu noon kanko woni sababu ha dañƴen salatul fatili ma ohliga li ami bouchra 1212 woni ami bouchra bouchra sa calcule ɗum bouchra waaw mooy 1212 chine o ko ujunere junni arra o ko temed ɗiɗi jubur ya ɗiɗi ya sappo woni bouchra ferga rasulullahi dañi duuɓi ujunere e temed e sappo e ɗiɗi nden o feeñi li ami bousra fil halwar nuran chanahu sha'a fil aqar lam yarda innahar fi jasahri wa umruhu isaka duna chahri nawgas e jeenayi yaawa weeti woni lewru koorko mbooyi henndu ene wuli kono lamyarde inna har o muynani fisa sahri lewru koorko ndu fof o muynani wo umrohu isaka duno sahre o dañani lewru o hoori lewru o rewaka lewru koorko cheikh mourul fouti kanko jeeyi addan en salatul fatih lima ohliga kelle mboyno guttu en mbi derewo muynani rewɓe anduɓe sukaɓe gadda yo ƴeew ƴeewi mbi omo selli haydara heɓani go cukalel ngel en mbi e omo selli nangue muti o teɓɓi endu nene makko one muynude ɗubali sade yayira di est ce que in enɗi muyninɗe cheikh umarul fouti est ce que enɗi muyninɗe cheikh umarul fouti yewtude worɓe allah ɓe yurmede allah jippoto o wi usrud hadisa saalihina wa sammihim fo bi zicrihim tatanazalu rahman ay ha haalat jewtete jeeyaɓe allah moƴƴuɓi ligginiɓe allah ɓe saabu sanon jewte jewte mabɓe tan yurmede allah wonata ke jippade ɗum waɗi noon jonde men hannde e oɗo ñalawma trois mars ferga rasulullah no yaare duuɓi ujunare temennayi e duuɓi capanɗe nayyi e joyi hannde e zawi cheikh umrul fouti ene jofi jamma sappo e jeetati jamma quatre mille lewru wiiteendu safar ene hawre jamma altini ano ɗum weeɓani weeɓani allah ne seedi weeɓani banndiraaɓe on jaaraama e yamiroode ceerno men ceerno wiino hannde yomi yewte e deftere nde ɗo ɗum addanimi yewtude heen rokkunoomi kadi yamiroore ko musidɗo men miñi men gannda laaɓɗo haala wolof arabe pular kala ko jaggi hen belto ɗon ceerno amadou ndongo oɗo amadou bara ndongo jammonen yaaha ko foti ko haalde hen ne heewi ko foti ko barkinirade ne heewi mi ñaaguima allah tabaraka wa taala kala gardunoɗo e haaju yo allah humto haaju rewɓe worɓe sukaɓe e mawɓe sukaɓe men wonɓe caggal leydi ngala kayitaji yo allah newnu janggoɓe kamɓe mbawi janggude fo yo allah waɗa hen barke allah accana en ɗo seeremɓe men allah accana ɗo khalifaɓe diini oɗo jamma ko jamma cheikh tijani ko jamma sappo e jeetati safar ko jamma quatre mille oɗo jamma ko garat mo ganduɗa o siwan nabi siwana annabi ma wara hu wara ala yeeso oɗo garat yeeso o rokka ɗum noon ceerno tokoro oɗo garat ko ɗon e nokku makko biyeteɗo darul miraya darul miraya woni ko e, woni ko e, woni ko fas caggal julde ɓe geeje haɓe gayni o waɗi duwawu ko waɗatno o wi almudou makka biyeteɗo aliyul harasimul barrada ar ɗoftam aɗa faami o jagge junngo mum ñaama o wi taaɓa ɗen goo ɓe taaɓi taaɓa noon anne eyi taaɓa ɗen ɗiɗi tati o wi feer gitima tan o yi arfa suko yiɓe jiye arfa tan annore no ummo e arfa ene fiilo e hoore nde kanko cheikh cheikh tijani ha gasi o yana e leydi o faɗɗi taw mbo rokke oɗo garade ñande hen no taani ko rokkirano yiino jibril rokka igra warñi nde ɗum arte makko ɗon ɗum waɗi salatul fati dendagal waliyaɓe allah goto fof yiɗino yo rokke salatul fati lima ohliga dañani o rewe makko o rewe laabi kewɗi o rewe qadiriya o rewe junaydi imamul junaydi o rewi toon ko laawol wiyto o rewe o rewe halwatiya en han o rewe imam kurdi en ha nelaɗo allah tawimo noon e halo makka mawɗo o to to asru abou samhun wimo ya rasulwa cheikh di chahma tijani nda ɗum ɗo mi rokkimi min woni garanti ma min hayri halwati ko alda e yaade halwa ko alda e ɓornade comci tampuɗi aɗa wawi wonde e nder yimɓe birda haaju ma no humto an e dendagal jagguɗo salatul fatili maohli yo allah waɗanen ɗum onon jarɗo onon jaafo sehil mon mouhamadoul mouhtar tin allahuma salli ala seydina mouhamadin wa sallim goru yo allah boobu tedde boobu gadon waxtanede mawlana cheikh alhaji umar al fouti radiallahu taala anhu boko waxe rek melne ni nga waxtanega cheikhuna tidiani sherif radiallahu taala anhu ndax ñun lu ñu mos ci cheikh bay tàqamtiku gannaaw yàlla ak yonent bi yàllaa ngi jaaral sabab bi ci cheikh alxaaji umar al fuuti radiallahu taala anhu ajam gu tedd googu joxe na farataam waaye tamit ëndil nañu loo xam ne mooy li gën mooy dariga bii kon nag boo waxtaanee cheikh alxaaji umar al fuuti radiallahu taala anhu حاج حاج مختار تين تي غود شيخنا شيخ شيخنا احمد التجاني شريف كون نك ييغال ني كيغا دون وقتاني رك موي بروم غودي غي waaw ndax cheikh alxaaji umar al fuuti yu indi lu ñu yóbbal bi gën dariga sayidi cheikh ahmad tijaani waaw moo tax guddi tey gi luñ ci mun a waxtaane ci njabootu cheikhuna tijaani nañu jàpp rek Cheikh Alhaji Cheikh na Tidiane lañu waxtane bo tudon tuddoon Sayyid Alhaji malik Cheikh na Tidiane nga waxtane bo tudon kenen ak kenen Cheikh na Tidiane nga waxtane ndax ñom ñépp li ñu am gannaaw yàlla ak yonent bi ñu ko am ci madadu Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu waxtane bi nga waxtane ci Cheikh Alhaji Umar al Fuuti ba mu jaral nit ñi di làmb seeni poste di la jox ñi di fetassu ñi di daanu leer koku buñ la waxe buñ la waxe patron fo dem ha mané buñ la waxtane Cheikh al hadji mourou Fouti nga làmb sa poos génne sa pochette amana sax 1000 francs yi nga jox yi ci nga wara pass paas ñibbi ndékk ci ëlëk waye baax bi nga dégg ci Cheikh El Hadj Oumar Fouti bu mu jaral la attanoo sa bop bopp to téye sa bop ngir daanu leer ma ne la kooku bu la waxe patron lo wara def kon te ñom nitu yàlla yëpp lu àndul ak ben sikki sak borom guddigi moy sen patron moy cheikhou Tijaan yi waaw moo yëkkati woon gu tedd gi mune ruhi wa ruhu jaddi hakaza waaw mu sama ruhu man cheikhou Tijaan yi ak sama ruuxu maam sallallahu alayhi wa sallam diggante altina ak talata bis doxul ci diggante gi aha mané koku nak buñ la waxtane njabotam ngay tinki tinki di kinti kinti buñ la waxé patron xawma noy def motax li cheikh waxoon lolay deug ndax ki dé cheikh ba cheikh di wax momit kako ka won dee wax ñoñu luñu wax deug la rasulullah yalla ko di mu wax ndax ndol mak lu mu wax yàlla la waxal sayyiduna muhammad lu mu wax lu ne yalla ko wax lo yàlla ne maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma aataakum arrasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu mané koku nak yàlla dé yoon ba mu wax ñu gëm Cheikhuna Tidiane koku ko dé moo tax ñu gëm ko momit haz xaas tin wax légui limu lambo ci ay martaba go xamné kenn xamul nu mu tudd xal kenn xamul nu mu mel ndax martabul kat mi lu ñu nëbb kon feñagul ba tey wax ci aljuma gi wessu kenn ku ne liñ la ci jot mosal mom nga ci waxtane waye taxul nga jot fukelu fukelu martaba bi khatmiya lu leer la qutbaniya lu leer la xawsiya lu leer la waye katmiya mom la nit ñi réere ba tay cër woowu di cëru seexu nag tijaan sharif radiallahu taala anhu man nak seer joxon na ma ndigal na waxtani hamidullah bi waye mu melni sama waxtu man dama koy delo sama serigne bi insha allah taala mu waxtane ñu cheikhuna tijani wala liko yalla yenke wal ñu war ko jeriño lata ceerno di ñëw sëñ isa yëkkatil ko rek ñaari bayit mo xamne shamsul ma'arif la mo xam qutbul wujudi alladi la wala dal ya xam Hadj Moussa Gueye ñëw incha allahu taala balaa ceeru ñëw ngeen baal ñu àq bu baax a baax bismillah wal haqqu annaka qad ataaka mubashiran xayril wara Cheikh Tidiane bil xatmi wal kitmaan Cheikhuna Tidiane Cheikh Tidiane والحق أنك قد أتاك مباشرا خير الورى بالقتم والكتمان شيخنا تجاني والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورع بالختم والكتمان وكما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيضان فامدد يدا من إلي تفضلا شيخ نتيجاني واردد بها وجدا بلا حسبان شيخ نتيجان ما بال مثلك بالإباء وقد دا يزهو بأدنى جودك سقلاني شيخنا تيجان فالدهر دهرك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتين ميشان شيخنا تيجان فتقلبا فيما تشاء وتشرفا من عالم الأرواح والأبدان شيخنا تيجان بل وزعا هذا الهجور تكرما شيخنا تجاني بين الرجال وهم بي تجاني شيخنا تجان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان شيخنا تجان متبسما فرعا بشفي ملائكه بسطوا إليك أكفهم بتفاني شيخ تيجان يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعدها شيخ للجنس من غرباني شيخنا تيجاني والحور من بين النواب في سيف العمى متفرجات في كك الولدان شيخ تيجان وعليك برد قد كساك محمد في الموقفين به وفي الاغلان شيخنا وتيجان وبوجهك صافي بوصف بائر مكاله شيخ أم الكتاب بقطع النوراني شيخ تيجان يا سيدي يا سيدي يا سيدي شيخنا تيجاني من لي بمثلك للفعاء دلاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي شيخنا تيجاني من لي بمثلك مدعتل أجفاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بمثلك للفعال دلاني شيخنا تيجاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي جازاك ربك أم بني اوتاني ثم الصلاه على النبي وعلي من ربه في ربيل انان نيونيكا بكاج موني ما قال احمد لتجا نمزيد الله شيخ تيجان فاليك يمنى محمد ناداني لا تخسرن توسلا وتدرعا وتركعا بالعين و تيجاني سلمى وسلم زيادة بتغرب كزي الغرابة زي تاني يوح بدت تغي الورى بتعين شيخنا تيجاني من كل نائم نازرين والآن وتسحزعت أضواؤها وسواؤها وتهم بالأقطار والبلدان كم شهدت عين الأقي قد قتائله وتكسبت عن فتح نوراني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته li wolof naan lu dul doy loo ca am doy loolu sunu kilifa gu tedd gi dañ koy sakkanal du ko wax waaye yaram bi sawarul nag waaye yàlla na yàlla def shifa wér bi jaahi sayidina muhammadin aleyhi salaatu wasalaam imam Thierno ñuy tàmbalee nuyoo beeg ziar bi ci yow di la joxit sa wàccuwaay di la nangul sa hadiye ci ñun te mooy lii nga baaxoo di ko def li ñu amul lu dul moom saa bu ñëwee walla yi ñu amul yu dul ñoom saa bu ñëwee nga génn ci hadiye jox ñu te mooy ñu daje fàttali konte waxtaane li ñu am sunu xol ak sunu ruux yi duyee ca leer yéen ciy duyee fa tabaarakallah sunu na ci sa teewaay talaate ji weesu rekk laa lay wax ma sama yëg-yëgu biir man dama ni fii fii ñu toog baatin buy defaree ngi fi baatin buy defaraate mu ngi fii te ku teey dal te ëppaloo di ko yëg de di ko yëg alhamdulilahi rabbil alamin ñuy gën di feddali sunu cofeel ak sunu fonkeel ak sunu kóllëre li wacci laahi azza wa di ko jëmaleeti ci yow di ñaan nag yàlla nangul nu ko bi jaahi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam la maam xaaji abdul aziz waxoon maam sëñ babacar si ca way wa bu doon mbubb ñu ngi koy àbbu solol la ko nanuy dagaan ak a ñaan ci yàlla buur bi nu moom ngay sax fi nun bakkanam ndax loolu mooy li war na yàlla sàmm ko nag wala yàlla ak li nga boot fegal la dàqal la lépp loo xam ne làmb na lor loolu bu doon bubbu solool nan la ko di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla nañu ko nangul di bégit ci ni ñuy fekke sunu imam bu baax bi tabarakallah imam haji muhammad al mukhtar tin tabarakallah ñu xam ko lol ci sunu way ga xam-xam bobu mu ñuy jiiñ ci mom yi la ne jangale kat la fa tabarakallah sunu khaliqin te ku sel te meuna selal la fa lillahi alhamdu wa shukr sa bu ñu ñewé yit fa tabaarakallahu tase fekk moom am lu ñu tànk yóbbu dolli ci li ñu xam ba ci yow mii sa bàggante bu gàtt bi nga def fii <laughs> xame nañ ci loo xam ne wax dëgg yàlla falam yabqa daal illaa an nuqaabila bi shukri toog di sant yàlla rek subhaanahu wa taala moo nu war tey laaj sunu bopp ndax xam nañu lu ñu am ndax xam nañu lu ñu am ak a neexoon ñu xam ko waaye mën na am duñ ko xamee fii nag ndax li ñu fi dajale di ëmb sunu borom kat mi ya ëmb yi ëmbal la bu yàlla ëmb dénk ko yonent bi jeex na du ko tekkee fii nag fee la koy tekkee ji fa lilahi alhamdu wa shukru ñun xëj na ca la ñuy yéege xamee ji fa نيت لي ام لو مو دون لان لا دي زيار تبارك الله تاميت نيتو يالا يي ني توغوندول ييب سيغ ساو جيري جيف تي كادو يي تبارك الله ييب كادو يي لير لا دي نيو نانكو دان دافاي تي زيار سونو عبادي لي تبارك الله عبد الحاج عبد الله اي الحاج عبد الله بري الحاج عبد الله سين desul. Ah, ah. kon jeex na kon abaate lay ñu ngeen di ziar di ziar nan daan ziare it ku tedd ku baax ki xaaju Malick Diop tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin Seyid Cheikh Ahmed Tijani Ndoy ba ca Tëngéej ñëw ànd ak sunu soppe nag xaaji Tafsir Mbay ma. sëriñ Cheikh woyoon turandoom jaarale way wa ci sëriñ Babacar Sy teerale ci moom waaw la shakka annaka tamsirun bi jumlatihi waaye li anna cheikhaka ik siirul akasir ha huwa da nag mooy cheikh baa ngi fa tabaarakallah sunul xaaliqin sunu aima yi ñuy sunu top ci sen gannaaw imam la imam tabarakallah euh haji Samba al haji imam la ak ñom sherif ak nitu yàlla yi tok yeb dal fi mom ko janool nitu yàlla la ko fi janool rek nitu yàlla la sëñ bi jere jef ci wal haqu ji wal xaqu annaka qad ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani xaw ma lu la ko yëkkatiloo waaye ceerno mii day li ñu bokk na ci li ñu mujj wax wal xaqu annaka xat ataaka mubashiran xayrul wara bil xatmi wal kitmaani waaw Seydi Bachir ba barakallahu moo ni turandoom ak luy mën a am daal wal xaqu lii dëgg li deug di li nga xamni ku deggu an nga ca annaka naka yow cheikh mi di sama turando dal di indi khat encore xam nga wal xàqu rek doyoon na waaye xat ca deug dëgg lu am la ataka dikena la kan mo la dikke khairul wara samam ينتي الله محمد عليه الصلاه والسلام والحق انك قد اتاك مبشرا غير دي لا سي دي لا لان بالختم والكتمان ختمي واخا لغي ني نيهنا ديغ نيهنا فيري منس نكو كام خم كاتمي موي امبي بي سونو بروم دي تيكي الك waye Serigne Cheikh nee na ci barke ñaar yoyu ci digeunte khatmiye bi ak katmiye bi ci digeunte sen digeunte ñom ñaar dal euh euh wal haqq annaka qad mubashiran wara bil khatm wal kitman wa huma al بالختم digeunte khatmiye be katmiye bi wa huma al الأساس lima tara mooy fondation wu xéewal yi ñu gis yépp ci àdduna bi nawet yu barkeel yeeg salaire yi nga xam ni mën nga cee téye sa njaboot ak oto yu rafet yeeg yépp nee na barke loolu mi ngi génn ci diggante sa ñaari may yi nga wéetoo te fekkoo ci kenn kenn fekku la ci te kenn du la ci fekk ci diggante boobu la xéewal yi bawoo yi ñuy gis yépp nag am mat ba noppi ne dafa matale xéewal yooyu dafa matale bi saatal ardi penku suuf si ba ca sowu ba nee na xéewal yi matale na ko bil fayadaani nag te nee na buy ñëwit du ñëw ndànk day day day day bàbbu kiy ñëw rek te nee na loolu lépp ñu ngi ko amee ci sagraat yi nga ràngoo te kenn fekku la ca te doo ca fekk kenn nit fekkoo ca kenn ba nga koy am kenn fekkulu ci te kenn du la ci fekk nag hmm? te li ci yéeme ba yéeme mooy defoo ko sa bopp defoo ko sa bopp de mais sa maam moo ñëw ne maa ngi lay bégale sa ñaari cër yi nga xam ne bokkuloo ko kenn mooy xatmiya ak katmiya moom yonent bi ko ko bégale sallallahu alayhi wa kon nag fam dut yaddan loxo boobu it ñun yàlla nañu ko tàllalu fii waaw fam dud yadan minha ilayya tafaddulan waaye ni ñu koy tàllale sa loxo bi tamit di ci indi xéewal yi war duut delloo waale ci noonu nag ba ba bu ñu amati benn njàqare buñ ko amati fam dud yadan minha ilayya tafaddulan war dut bila wajdan war dut biha buuj dan defe naa bilaa xusbaani defe naa noonu la ko waxe delloowaale ci tamit njàqare yépp te bu ko utal ni nañu mel nangam nga soog koo def defe ko ci sa mbaax rekk nga ëmb ñu ci sa mbaax defal na ko loolu mu ko waxe noonu nag yàlla na baaw bu fii ñu amaale ci waaye li wér te wóor mooy alxatmiyat bu cheikh bi ponkali nitu yàlla yi bu ñu doon ay per nekkoon di ay per ñu nas leen caq xam nga bu rafet lay doon ah xatmi bi xam nga mooy lan mooy diigal bi cheikh ay diigal ba mu diigal bi mu mu mu ngoog ceerno mi ngi mooy diigal bi ni yonenti bi nek digel ci buñu nason per jël per yonenti bi defon ay per nas len caq bu rafet sol ko yonenti bi di digel ba nonu la cheikh nek digel ci bir nitu yàlla yu makki ku koko nangulul nak wala nga ci dit ditel jaro waxal da nga demul rek da nga demul ku demul nak xamoo lu xew waye kullu shuyukh fa qawlul xaqi munfaridan min xadratil xaybi إن رب أعلاه كل سيوقنا قول الحق منفردا من حضرة الغيب إن رب أعلاه ci la de حضرة الغيب إن رب أعلاه moo tax nag ngay dégg ca wala falu Alaaji Cheikh sama ba mu naan min azal ba bufta diwal koo fi naw ci cheikh la di duy te loosu gaaya ñépp la cheikh tëg dëggoom ku bañ du ni xuy mu jeex tàkk ku bañ rek doo doo ah ay dëggoom nag ni ñu ko ceernoo firiree ci xam-xam bu sell ak mbaaxam nee na naka ci dëggoom yooyu mooy xat mi yàgg mi ñaari ñaari ci ñaaram yooyu le ci la féete kaw ñépp te kenn mënutu ko féete kaw nag ñaaram yooyu ci la féete ñépp kaw tey tamit ñaaram yooyu ci seen diggante la xéewal yi xam-xam yu sell yi wërsëg yu yaatu yi noonu ko sëñ Hadi Touré waye sa leer gi mooy tëbbe yii xam yu sell yi wërsëg yu yaatu yi eskay Cheikhu Tidiane barzaqul maktum taajul arifin e yal na nu yàlla may ñu sax rekk ci fii mu ñu teg te mooy tarixam bii ko maamam xottil mu nekk jaarukaay fa tabarakallahu bu jëm ca moom moom yonent bi ku dib xutbu maam sëñ Adu Ture ba tey ku dib xutbu mbaa ngay boromi wilaaya Chérif Cheikhu Tidiane lay tëbbi may Cheikh lay jox de ku di xutbu wala ngay boromi wilaaya la nga am yépp Cheikh la ko jox waaw cër bu nitu yàlla amit cër bu nit yàlla mën a am ak lu mu kawe kawe kawe ca cheikh lay jaar de nga soog a jot la ngay jot te booy dem ñi daan ñi bo bo boo fi jógee bokk ca aqtaab ya ponkal yi mag di dem kër yàlla boo jegee kër yàlla xam nga lu la koy xamal ne yaa ngi séen kër yàlla yaa ngi koy jege gis nga booy jege Madinatul wara soroor yooyu mel ni jant yu ñu taxawal cheikh mooy sooroo boobu saxaw ca kër yàlla. macha allah mooy mooy orienté gaa ñi bu doon leen ne egsi ngeen. waaw waaw cheikh la de. ma ne ko cheikh la de moom mooy sooroo ba ëtt ëtt ba ëtt ba mooy sooroo ba taxaw ca kaw. ba ku ko séen rek xam ni jege nga kër yàlla subhanahu wa taala barzaqul maktum taajul arifina sultaanul awliya yàlla na nu yàlla nangul suñu doon di taalibe ci moom sa waay da nga wax lu am solo boo dee xalaat nee na ponkal mu mel ni seexal El Hadj Umar radiyallahu taala anhu di xalaat ki ki war a nekk sëriñam kan la loolu xajul ci bopp hmm? xajul ci bopp ko loolu boo ko bëggee xalaat sax sa bopp toj boo ko bëggee xalaat sa bopp toj ponkal mu mel ni Cheikh Umar ñu ni kii mooy sëriñam waaw kii mooy kan bu ko xalaat boo koy xalaat sa bopp di toj yow koy topp ci rek def la maam Xaaji Malik Si wax radiyallahu taala anhu ci sëriñ Cheikh laa nangoo mu ne maam mu ne Seydil yoon yu ma jëloon mooy bañ a bokk ci benn nee na Xaaji moo bind loolu wax ko yoon laa jëloon bañ a bokk ci benn ndax fa may jaar baag borom yàlla may na ma xam naa ko waaye bi ma tegoo ci yoon wi dem buntu kër nga ma romb ma romb ko gisee alxaaji Omar toog di am lu muy xaar ah nee ma ko romb ma ñu di wuti lenn toog foofu nag <laughs> la muy xaar nee na ci wetam laa toog di xaar la muy xaar <laughs> dematuma nee na loolu moo ma booleeg ma ma jaar ci tariixa bi Cheikh Alxaaji Omar moo tax booy jël werd ci. ci ci silsila Cheikh Al Hadj la la koy joxe ay njaboot tamit ci leen la koy joxe radiyallahu taala ñoom ñoo xam lu tax waaw sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu moo wax ay doomam Serigne Cheikh ni leen ba ma sàmmaam dee wax ni ni ñu ma dénk woon njabootu kaw ak njabootu suuf noonu leen la ko dénkee yow Babacar fa ñu doon dajee ki la proposé ba ñu def la ko Cheikh El Hadj la moo joxe sa tur Sëriñ Babacar nee na Cheikh Omar moo moo moo joxe turam moo ko proposé nee na ñu nangul ko ko moo tax sëñ Cheikh ne na ba mu feebaree feebaram bu metti ba moom sëñ Babacar docteur yi ku ne jéem. muy gën mu ni man de ma gëna doy war way ma gëna sagan am serigne mel ni Cheikh Cheikh Al Hadj Umar dégg nga di jaaxle ci son febar ci la waya abu diine wa taqwa jël turu Mawlana Cheikh Al Hadj Umar Al Hadj Umar Al Fuutiyu xaraf bu ne mu way ko neena ba way way jexé ba way way jexé neena ma teud melni ku for bët nee ma seen ku sol wextal nee na war fasam wu weex tàll ci benn suufu garab nee na ma séen ko ñëw a ñëw a ñëw ba jege ko nee na nuyu ko ne kii kan la mu ne ma umaru nee na jël lu mel ne benn cab bu raisin jox ma ni ma lekk ci nee na ma lekk ci yeewu wér dara jotatuma <laughs> hmm? waaw kooku yaayee laaj ni këy sëriñam lu mu hmm? moo tax la Cheikh sama wax rek moom dafa dafa feranku laayul wax ji Omar Fuuti ku doon moom ci réew yi soo daan moom loolu ngay laaj lay laaj mu Mouhamadul Baba ku doon moom ci réew yi bay daan na bahaani ma juumoon fégal na tiijaan Yusufa na bahaani moo fi raw moo fi raw moo moo moo moo moo moo xëyoon rek ci xam mu bari bi attaqué jawharatul kamal ni baatu askam du arab waaw mu jot mu jot ay rep ay tontu maam alaaji ibrahima ñes def maam alaaji abdoulaye ñes ca la ak maam xaaju malik waaye ba mu jotee seen tontu yi dafa ñëw ñaan si tarixa bi xaw ma nag luñ ko wax ba mu ñaan weer moom la Cheikh Gassama na bahaan yi ma juumoon fégal na tiijaan ah, kon nag mu ne nag rijaal yépp a ngi riir tey di fekki tiijaan kon na ngeen jébbalu yéen ñépp bañ dafay xaaj te ànd ak ki ma àndal nag te bañ di ko waaj ndax ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj shérif bee jara àndal baleen njuuj njaaj te cheikh taalibe mi ni ñu amee fayda taalibe mi ni ñu baree xam-xam taalibe mi ni ñu amee fit am nañu fayda bari nañu xam-xam am nañu fit ba noppi nag tànn nag ca yëf ya lot mel ni boo leen toogee ak ñoom wala nga gis ak ñoom mel ni mënuñu dara xamuñu dara cheikh noonu la yara ay njabootam radiyallahu taala te moom mii ca la bokk nag ci nga kay <laughs> <laughs> waaw waaw waaye dara ku nëb ku nëbbu ngir yàlla ku nëbbu ngir yàlla yàlla mooy xëy feeñal la <laughs> benn werante newul ci loolu kuy nëbbu ngir yàlla sunu borom mooy xëy feeñal la fa lillahi alhamdu wa shukr kon li ñu am tey ci weer wii di safar fukki fan ak juróom-ñett ñu toll ci guddeem cheikh jot ci cëram bu nëbbu bii moo lay won ni di la déggaloo ni ndakati ba lislaam ñëwagul ci asrul jaahiliya jamonoy réer ga xam nga weer wi dañ ko daan gaafal safar bi dañ ko daan gaafal naan kenn waru cee takk jabar kenn waru cee tàmbali tabax sa kër di ko wax ci safar naan kenn waru cee tukki gaaf bu metteloon ci jamonoy ceddu ga te dañ ko bonaloon ba noppi indi ni ba ji mujj ci weer wi lu war a mat euh, xawma ñaata junniy balaa daañu wàcc ci bés boobu ba tax na bu ci kenn fóot bu ci kenn sangu bu ci kenn def lii te mooy àllarbay kare la ko fu di wax mayu cheikh gi ci kër bi wekki na yëpp sànni ndax bi maamam yonent yàlla Muhammad ñëwee daf caa dajji yu bari sànni fële at tashaaum shirkun wax ko ñetti yoon gaafal bokkaale la gaafal bokkaale la xadis bur la yonent bi aleyhi salaatu wax ko man raddatuhu tiyaratu képp koo xam ne gaafal tax na nga dellu gannaaw ci la nga doon bëgg a def faxat ashraka bokkaale nga ak yàlla loolu xadis bur la yonent bi wax ko te boobu yii la doon dajji te ci weer wii di safar ñu naan kenn du ci takk jabar ba ñëpp gëmoon ko bi lislaam laataa ñëw ci la yonent bi takk xadijatu bintu xuwaylidin ci lañ ko ko may ci weer wii di safar ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam may fatima bintu rasulillahi sayyidina aliyun kii wekkiwul sànni ñi doon wax ni kenn du ci takk jabar te kenn du ci tukki te ci weer bii di safar la defee yooyu sallallahu alayhi wa sallam cheikh nag ñëw faf jóg weer bi bu bu aayoon gaaf cheikh dana jot li mu jot xat mi ya bu dee xat mi ya ca tamxarit ja la ko jotoon so reewunu bu dee xat mi ya bi ci safar bii la ko jot ci fukki fan yaak juróom-ñett ba yónneen ni ko jëxrën ayaa bunayya fa indi la mu rabbika daa siwaaya te teg caat ni ko yow yaa di xutbul maktuum te barsax nga ba tey yaa di xawsu maktuum cheikh cër yi mu boole ci moom rek la xaj mais xajul ci keneen waaye nag bu ëllëgee moom daal ginnaaw ginnaaw yonent bi daal ci gàttal cheikh la fu cëru yàlla mën a feeñ nag ak nu yëf yi mën a demee ma ka fa nekk ca bopp ba mané cheikh moko tibbe moko tiofal bok jox ko lamu am ba tax fa tabarakallah sunu khalqina la fa nek nek fa yal nu yàlla nangul sunu doon di njabootam فبالختم والمخدوم ثم انه لختم ولايته كتب الرتبه به ختم المولى ثم لولايته ختم ختم راسا بروح وكلمته سأنسل خاتما ظهر الولاية فليس بين بعضه بمزارعته وإني كنيت أبا الفيل إنه من جمع عالم فيلتي فكل ولي كيف ترى البليل يمت جمع عالم بفيلتي تيرنو من تكي أدركي أو تيرنو من gila awwalan gila baba aadama bakkeetidde ɓeenaani ɓeeno waliyaaɓe fof kuuniiɗi ɓuɓuuji fof taarikula aarifina taare cheikhu tijjaani jeyal ko allah wooɗani omara omo haaji fof omo hayna haa siidi caliiɗe giiɗo haanaani baaw somi ɗoftuɗen mbiyanne haali gonɗiɗen mo jaɓaani ko jamna ɗum jaɓo huba ñippaani alhamdulillahi ƴetten allah baɗɗu en tijaaninankoɓe juumie farɗo sumu wappaani barakallahu kon nag jërëjëf ñu ñu daaneele ko rekk jël lépp dal delloo ko yàlla mi nu baaxe ba nu am te mooy nañ ko daan defe rekk ñu bakk yàlla jox ceerno moom mi nu baaxeel boppam ba booleel nu boppam fii te ñaanunu ko ko ñu sante ko ko subhanahu wa taala la daloon sunu yaay Aïcha bañ ñu ko tuumaalee ci tuumalu metti la bopp yépp jaxasoo liñ naan saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel ba ci yonent bi boppam boppam jaxasoo li muy doon doon yonent ci tuuma bu ñu tuumal yaa Aïcha naan dafa def naka su dul noonu yàlla ma yàlla baal nettali bi yonent bi tax defatul ak moom benn af benn defatul ak moom neen daal ci sañu bokk kër gi Aïcha it xat ci loolu ni ko euh, mbaadu li ñu may tuumaal mbaadu da nga ko gëm mu ni ko yàlla soriwuma ma maa ngi koy déglu bu la setalee nga set bu la taqalee nga taq Aïcha jooy ba desetul rangoñ ni ko comme demee na noonu léegi damay ñaan nga may ma ndigal man ma génn sa kër dem sama kër pàppa ba loolu nga wax am yàlla setal ma mbaa mu taxal ma yonent bi ni ko demal jooy yi métti la génn foofa jooy yi metti la àgg kër baayam Seydina Abubakar Siddiq gis koo kii jooyam lan la mu nettali ko wax ko li xew ba kër ni ko jógal ñu dem mu jóg Seydina Abubakar delloo ko ni bi nag ah, dóor naa ko ci sax ba yaa ma ne bàyyil dóor yi laaj ko rek te bu ko dóor waaye man mi ko jur xam naa ko loola ñu ko sosal wax dëgg yàlla man mënuma koo nangu ndax maa ko jur maa ko yar maa la ko may mënu mu ko nangu de yonent bi nag xam ni c'est sérieux mu woote magi saxaaba yi ñëpp toog Aboubacar a ngi toog Omar a ngi toog Ousmane a ngi toog Ali yo ngi toog mag ñaa ngi toog Aïcha ngi toog yonent bi ni ngeen baal ma de maa woote woon Aïcha mii cool yi bari na te metti na te liñ koy sosal di ko ko wax liñ koy waxal rafetul mm-hmm. Aboubacar loo ci xam yow mi ko jur may ma ko Aboubacar ne ko loo ci xamul yàlla xamu ko ci xaw ma ko ci Omar loo ci xam Omar ne ko ah, man it day lii wax laay wax de yow mii yàlla yónni loo ci xamul yàlla xamu ko ci xaw ma ko ci Ousmane loo ci xam sama diggante ak Aïcha mu ne ko ah, fekk naa si ñii de man daal loo ci xamul yow mi yàlla yónni yàlla xamu ko ci xawma ko ci sidina Ali moom mi ngi lox Ali loo ci xam Ali ko fase ko hmm? fase ko ji du caagin dama gëm luñ ko waxal yow laa bëgg nga tal li la yàlla yónni ndax bi tuuma li amee ba tey lekkoon naanoo te yaa ngi jeex fase ko nga takk keneen tàlli la yàlla yónni du caa gi nag dama gëm li ñu wax de yow laa bëgg nga tàlli la yàlla yónni coow la jógati yonent bi jékki-jékki liw ah ju xam ne nag yàlla yebal jibril mu ñëw sunu borom subhanahu wa taala wàcce aayaam te ba jibril ñëwee daf ko ne sunu borom mi ngi lay nuyu yow Muhammad te ne na nga nuyul ko Aïcha sunu boroom di tagg Aïcha di ko setal ah di ko tagg di ko setal ba noppi nag xamle ni li tax ma yéex a leeral mbir mi dama bëgg xam ñi ñu war a yar képp koo xam ni waxoon nga ni loolu ñu wax ay su dëgg la ba wax ko ci sa làmmiñ nañu la dóor téeméeri yari yoon te bul waxati ci lislaam lu ñu gëm ah keroog dóor nañu kilifa yu bari waaw yonent bi ni ku ñu dóorul fii nag daañu lu dóor ëllëg ca kanamu yàlla léeg benn kilifa ñëw ñi ma man de waxoon naa <laughs> waaw ñu dóor ko <laughs> ñu dóor ko Seydina Bakar na ne Aïcha looy xaar gërëmal sunu sank bi yéen ci yàlla Muhammad gërëm ko Aïcha na ko gërëm man duma ko gërëm de man kay ngërëm bu ma koy def ak sant yàlla mi ma setal lay sant ndax bi coow li jóge moom mii boppam xawoon naa jaxasoo ci man kon nag yàlla mi ma setal moom lay sant tey moom lay gërëm Aboubacar tiit ni ko looy wax ni da nga bëgg sa làmmiñ wow ci sa gémmiñ gi ah gërëmal Muhammad mu ne ko yàlla lay gërëm kon nag ñu nit yàlla mi nu baaxe ba boole ñu ci tariixa cheikh bii te ñaanuñu ko ko defal nañu lu rëy laka alhamdu mawlaaya yaa zal baqa wala la kashifuhun wa anta alqidam kon nag jaama ngi jaamu jaama ngi way boromam jaama ngi jaamum yàlla defuloo kenn luy tee muy toog di la wéetal di la sant ak di la jaamu jëf nga ngëneel ya lanu nar konta wat bay toog di ko jooytu ko làmbaatoo daji njariñ ya salaamu yàlla dafa dul teggin nag ñuy toog di la xaarte xorondom yay baagantey riime di baamu ñu di tiisloo karay baat ak lewatali bët di la tuumaal jéggal ñu yooyu salaamu ñoo la wor jaaru feneen muy doon dëgg fitna laxasoo bu mi jaaxle del si di jooytu nga di baax daayi man moo ni janjang jërëjëf yaa di delsi waay bay salaamu mooy njalbeenu gaaf gi nu xës not sa këtal ñuy soobu ciy xeeti njaaxum nga di aar tey musal di ballu di balle jërëjëf jërëjëfal te jaajëf salaamu yàlla boo nu ñeewante wolu rahmaan fu nu jëm kon xajuloo fen ci ñun tijjil ñu sa yoon ya di ñu wommat ñu naan kondom ba ca ndam ya li ko danku mu wàññeeku des di la jaamu jaama ngi jaamu jaama man réccu naa tuubi ruubi tey lu ma war la sukk naa la sa gombaanoo naa di la tuubal yàlla yow mi amal samaaw ya di oliya sukk naa tàllal lay loxo yaa salaamu jaama bu la neexee jéggal ñu tooñ yenu jiital bu la neexee jéggal ñu it yi ci yoon wi matadi fii la yem fi man yow kamal nga doyadit man la bul ma bàyyi salaamu yàlla bu la neexe tey ji li may bon a kay bon similak saa nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ga may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf gën ma ci jaamu ngay wéy boroom yàlla maya ngay may lu jiitu ñu woola la maya joppi yiw lu jiitu nu ñaan cant yaa ngi di ñeel la lépp yayoo nga walaka alhamdu ya rahmaanu kon taara ngi may sàbbal bég leen dëgg reena la ca des mbàmbu lan la cey yërmandeem jë dafa jiituy meeram fii nun nanu sellal te di màggal ànd ak toorox di jaamu jaama ngi jaamu yaay léppi ñépp tey boroom kumu ak fu mu mën doon ku la daj dal ci dundam te it ca deem làmb daj ndem yoon amul yow ku la daj dal ku la woy woy buuram nangul nu salaamu yàlla ku la woo woona buur dëggit ku la ñaan am ëpp nga jaam yaakaar la yow nga di neenal ku la ñaan war na jaam ba ñaan na boroomam nekkuloo kuy tàng xam luy woote salaamu yàlla ku mu doon ak fu mu doon ak nu mu doon ak lu mu mën doon te yàlla génn ca neen la ku mu doon ak fu mu doon ak nu mu doon ak lu mu mën doonte yàlla génn ca neen la fippu naa féqu naa buddeeku ca neen ya lu ko moy moy la del si na yaa salaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way yàlla sa gënaa rot sàbbal la ngi lépp ngay boroom bu la neexee ni ma siggil ràngal may may yaa yalla suma rango may fi yow badi di range kuma rangal dello la ngay aji rangal wat rot sujjoodal ak yama rango nyama rangal allahu akbar salamu. kon mangi dello delloo mbàttoom la ndaa la ma naane ku ni ni ni ahmed mi ñu nàndal jaaraama na Muhammad sang ba baayu Zeyna bokkal soomam kon julli ak xéewalam ya yal na ko dottil bi la yónneen feeg duusi géej yi di sànni di ko dottil njaboot ga ak àndandoom ya di ko dottil xeetam ba daaru salaamu kon nag yaa rasuulal ilaahi fi kulli xiinin laka minna taxiyatun wa salaamu o wi en total ceerno samba diako kankone o waɗa en o waɗana en tawhid e konngol la ilaha illallah la ilaha illallah ene fotiri fof on saaha toten ceerno mom makko ne o wi o ñaagimomo ɗum ɗo o waɗi o ñaagimomo ɗum kuñakaari o waɗi o wiɗo kadi o ñaagimomo ko o waɗat tan ceero nene ñanonna ko pour mu def ko loolu fale ca kuñakaari mu def ko ñanonna ko fii mu def ko te yiɗi inchallahu taala mum koye ñanat pour mu def ko o wi so tawi o haali kalima la ilaha illallah o enen fof ndewen hen mbiyen la ilaha illallah keɓen baraji o heɓa baraji ceerno nene bo waxe batu la ilaha illallah bi so waɗi ɗum boko defe enenne kadi ma en mbaɗɗum ñunit danañ ko def sabu ma en jaɓanmo ndax danañ ko aw o heɓa baraji keɓen baraji mo am tiyaba ño am tiyaba kamɓe seerenɓe ɓe eɓe nganndi konngol la ilaha illallah gootol jaɓongol ene wona sauvetage aduna e laakara ndene sérigne si xam nañu benn baatu la ilaha illallah bi ñu nangu sauvetage aduna la ak alaxira ceerno samba bisimillah nde woy ko noon لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله ألا إن من رام الورى بجزالة وساق إلى الرحمن فرد جلالة هو المصطفى هادي الورى بإبالة أفيه ارتياب بعد نور رسالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ له ذات هب للولي ولية مكانته فوق الأنام علية جلالته أنا غير حق خلية إنارته حسا وعقلا جلية فلا الرين يستعلي ولا القصر يفجع فلا الرين يستعلي ولا القصر يفجع سيادته دنيا وأخرى سنية ورتبته عن كل خلق غنية محبته فوز لنا وجنية أتى فزكى قلب السعيد ونية فلا الوهم يستولي ولا الشك يطرع ألا إنه رشد عن الحق ماضه ودوده دن رأس المعاند راده وحق مبين كل ذي البغي ناضه أبان الهدى فالحق أبل جواده وعلى الطرى فالأمر سعد مهيو له مندق أبهى من السهد فائه وكم مبدل أسغى له وهو طائه فصار سعيدا سيدا وهو نائه أبان علامات الهدى وهو مائه وسار الورى فالعيس هل محنو وسار الورى فالعيس هل محنو وملته فاق اللقر فاق إرسها قوائدها زان البرية خمسها ولما دعا والحق والبر أسها أداءة جن الأرض دوءا وإنسها وقدم بالنسل النفير المجرع صلاة على هادي الورى بصفائه سلام على من عالهم بضوائه سلام على من خصنا بذكائه يفرهنا إسلاه خرق خبائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل وسلم bandiraɓe ceerno wi caggal yettude allah e julde e nelaɗo allah mouhammadin sallllahu alayhi mbokki yi neena gannaaw sante yàlla julli ci sang bu tedd mi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e ñaagaade welu yalla allah yo won e ceerno men sheikhana ahmad tijani sharif radiallahu taala anhu ñaan ngërëmu suñu borom bi subhanahu wa taala na nek ci suñu serigne sheikhana ahmad tijani sharif radiallahu taala anhu وسيل مدن مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه اكسن وسيله دي مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه شرنوي ابنبي اموي بندرابي بوب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شرنوي واخ يب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرم شيخي وسيدي ووالدي وحبيبي الشيخ محمد بشير تال أطول الله بقاءه يكو حالتكو أمولمتو هين ceerno men jinnaɗo men giɗo men yo allah juutno gurdam makko allah heddamo ko ɗo ko juuti ko juuti هنا شير من شير محمد بن البشير منتقى داها مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه شير نينا كادو يمو يكتي مونغي تي ووتو سنو سرين سنو صوبي دي سونيو وسيله دي سونيو خريد دي شير محمد بن البشير منتقى داها مولانا شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه واي مونغي يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا يالا لول o wi sen ji o wi omo lomtowomo he konngol ngol ko ceerno mouhamadounil bachir yamiri konngol ngol hay so tawi konngol ngol ko e makko yaltata kanko ceerno kono noon kam ko haalata ko ko ceerno yamirimo yo haal ɗum nene bu ñu gisee mu ne dafay wuutu ceerno mouhamadounil bachiru ci kàddu gi aha kay ceerno mouhamadounil bachiru moo ko jox ndigal mu wuutu ko mu waxal ko donte ne nag kàddu gi ci gémmiñam lay génn waaye nañu xam ne ndigalu Mawlana Ceerno Mouhamadul Bachir Muntaga la e o e wi kala ko feewi heen ko moƴƴere allah e barke makko kanko ceerno kala noon ko feewaani heen ko neɗɗo woni mo timmaani eɗen ñaago allah tabaraka wa taala e moƴƴereeji makko yo allah jaban en yo allah timminan en neena nak lu ci jub ndi mbaxu yàlla la ak ak ñaanu ceerno ak barkem waye nak lépp lo xamne melna neneen nit nak motul waye ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala ci mbaxam nga yal na yàlla nangul ñu yal na yàlla mottalil ñu li nga xamne mom lañu wara wax o wi ceerno o tini ñalawma o o tini jamma o omo wondini e meɗen nder e boowal nene ceerno yegna bisbi yegna guddigi te yit mu ngi ànd ak ñun ci biir ak ci biti omo yemiri en kala ko woni yemiroore allah ene jokki en ɗam omo wondi e meɗen e ngal ɗon gollal ceerno mu ngi ñu yëgal ni lépp loo xam ne dañ koy def muy jokk mbokk di ndigalu suñu di digal ndigalu borom bi subhanahu wa taala moom Ceerno mu ngi ànd ak ñun ci jëf jooju wi haa tengti noon e ko wayno ɗiɗo jammaji ko jammaji alliyankoji nena ragawatina nag guddi yu mel nii guddi nga xam ne guddi suñu borom bi subhanahu wa o weeso ɗum yawti o yetti allah o yetti haalɓe ɗoɓe o yetti kadi arɓe ɗoɓe ceero nena buloolu weye nag santana yallah santana mbokki nga xam ne yëkkatinañ fi ay kaddu waaye tamit mboolem kifi teew ceero nena santana la o wii ko pulaar wiyata ko mo limti juuma walla mo limti juutna nena li pulaar waxta rek mooy dini ku lim guddal walla am koo bàyyi o wi ɓe imam moussa limi ɓe e ɓe o limani ɓe kankone o naturi e nder ɓeɗon nene imam moussa ñimu joto tuddu ak ñimu tuddul yeb mom ceerno dugali na cibir o wi ɓe imam moussa limi ɓe o rendi e imam moussa ɓe limdiɓe ɓe o limani ɓe o wi kanko e imam moussa fof ɓe ndendini ɓen e nder ɓerɗe maɓɓe ɓe limiɓe be. ceerno nee na ñi imam Moussa tudd moom ak ceerno bokk nañu tudd ñooñu waaye ñi ngeen jotul tudd ci seeni làmmiñ yow ak moom yëpp boole ngeen njaboot googu yëpp tudd leen tudd ñooñu ci seen biir xol o nde wonno woni ɗo tan ko ɓe sabi allah nene ñi fi daje ñu soppante ngir jëmmi yàlla rek ñoo fi nekk ngari ɗo ngardi ɗo kadi sabi allah ñu ñëw fi ñëw fi ngir jëmmi yàlla o wi ginnaɗo hen innama mo innaka hen kadi innama nena kunci tuddu tuddu nañ la kuñu jaarol so turta miɗa yegal ni tuddu nañ la o wi mana o way kono helmere wotere nanto qur'ana to sa ummirimo hoore ga ko nde haalata ko sa ummirima gasirde to kadi ko ɗum tan woni ko nde haalata nee na maanaa bi dafa mel ni benn kalima ñëw na ci alquranil karim boo tàmbalee ca bopp bi lu muy wax boo tàmbalee woon tamit la ca geen ba tamit loolu rek lay wax kadi ko karfeeje tati tan nee na ñetti xaraf la rek woni wo huwa o wi sa windi wo huwa boo bindee wo huwa saa ummirima ga hoore ga boo tàmbalee ca bopp ba ko waaw nee na waaw moo jiitu waɗa portal wiya wa ñum masko uh, fatha gane wa o wi har feere rewde hennde nen benen haraf bicci top ko ha on ne kadi masatural woni ko mbiyeten damma ko mom tamit haaɓi ñu daadi koye mas li nga xam ne mo moye damma moye hu o wi har feende sakkitiinde nde ko waaw nena haraf bu mujjubi tamit waawla on ne kadi masa ko fataha mom tami dañ ko masa fataha sa fuɗɗorimo ga bo tambale fi mbiya wa hu wa woni wo huwa sa ummorima ga caggal ga bo tambale tami fa jeexital ba mbiya wa ngane wa mbiya hu ngane hu mbiya wa ngane wa tamit woni wo huwa kadi so yeeso ko wo huwa so caggal ko wo huwa cakkanam wo huwa la cagganaw tamit wo huwa la so E o wi sen kaali worɓe ɓe e rewɓe ɓe enen fof ken hunde wootere yiɗodirɓe allah e nelaɗo mum e cheikhuna tidiani nene boñum waxe cigorni walla cijigueni ñun ñeppu ɗal ñifidaje guir jimmi yalla la ak yonentibi ak cheikhuna tidiani sherif radiallahu taala anhu ko ɗum tan joƴƴini en ɗol lol rek mo ñufitoklo o wi ɗum ne kadi machallahu perte ala hen nene jotabi tamit dunninde o wi sabu joɗorade saabi allah nitkito guir jemmi allah ene hucciti e yiɗɓe muɗum saabi allah gajanok sayi soppe guir jemmi allah on kaalata so wona haala allah doolen wax luddul kaddu bi yàlla jonde mon nde ƴengitine to hadis nelaɗo sallah sallam o wi nden jonde mande ƴengguite ɗo hadis nalaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam haalanno to nena jota e boobu danen ko yekkati acko ci hadisu yonente bi sallah alayhi wa sallam mbimuɗan wah o wi yimɓe jooɗota ko e nokku nena ayni duñu tok ci bereb ko wayno suudu allah lumel ni neegi yallah o wi ala ko ɓe kaalata toon so wona haala allah amul luñu fay wax ludul waxu yalla ɓe gummotako ɗon so wona maleykaji piiltoɓe duñu jog fo feeñu toog ludul ay malaka daadi len wor foofu taw kadi yurmede allah ene tiimi e maɓɓe fekk yirmande suñu boromɓe subhanahu wa taala mug len tiim malkisaaɗo jooɗata ko o wii ɓen yimɓe de ko yimɓe ɓe ngannduɗaa malkisaaɗo jooɗdotaako e maɓɓe nena mboolo mum de ay nit la ñoo xam ne ku texeedi du bokk ak ñoom jotaayi o wii humul qawmu laa yashqa jalisuhum ɓeen ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ñooñu ay nit la ñoo xam ne ɓe jooɗdotaako e malkisaaɗo ñoom duñu tooga koo xam ne dafa texeedi ɓe mbiya a hay goɗɗo kay wirtinomo ɗon ñu daadi wax ni a am na benn waaju faro bonde o ndaari ɓe mu daadi leen xool o wi hay on kay ona to ri e nder maɓɓe nena kooku rombon fof xool leen bokku na ci gaayu texe o wi alhamdulillahi rabbil alamina o wi gila takkusan la tambale takkusan njuulɗen waktu o ñu daadi jooxe waxtu wi naatɗen ko e laasimaji meɗen ñu ngi tambali suñuy lawasim nde laasimaji ɗi gasi biñu no pecci suñuy lasim futuro yoni timis ɗaadi jot njuulɗen futuro ñu ɗaadi julli timis nde ngaynuɗen futuro biñu no pecci timis gi naatɗen e wadifa meɗen ñu ɗaɗiɗa suñu wadifa nde wadifa o gasi biñu no pecci wadifa bi naatɗen e geeƴo ñudaadi julligee nde njuulɗen geeƴe ngasnuɗen biñu jullee gee ba noppi njoƴƴinɗen jonde nde ñudaadi nak tooktoogaybi jotaybi ngudditirɗen jonde nde ñudaadi ubbee jotaybi ko moolnaade e allah kala cheytaani mooy muslutii yàlla lépp loo xam ne mbiru cheytaani la بيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقدر أن حضر أن يدادي أبي حضر بي أويد بسم الله الرحمن الرحيم تتدو تمد باب تدبي بسلوي لما دين الله الله صلى الله عليه وسلم موتخ ينتبي صلى الله عليه وسلم نه وويك له هوند فطران بسم الله الرحمن الرحيم ما ندير هون واد بركة من مم ينتبه صلى الله عليه وسلم بيب مبير مينو تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم مبير مم دنا أم بركة الرحمن الرحيم nder hunde ala barke o wi ko noon o firiri hadis o kono hadis o wiyata en kala hunde nde fuɗɗoraki bisimillahi rrahmani rrahim nden hunde nde ala barke nena ci anam bi jakki bi mu waxe noonu la firee hadis bi waaye hadis bi dafay jàngal ne bépp mbir mu ñu tàmbali te tàmbalee wuñ ko bisimillahi rrahmani rrahim mbir moomu amul barke tawi a fottirima gollal maɗa bisimillahi rrahmani rrahimi nelaɗo haalkinta ko deka noon aɗa yakori hen barke o wi ɗum waɗi sa fuɗɗorima gollal maɗa bisimillahi rrahmani rrahim nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o haalkintako wadde noon ɗen golle ala yakori hen barke motax be pujotayi walla lumu boko tambale bisimillahi rrahmani rrahim dafa fekk ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom du waxantu comme que nag du waxantu lépp loo tàmbale bisimillahi rrahmani rrahim mun nga am yaakaar ci mbir moom yàlla tàbbal ci barke o wi ndeen moƴƴere mawde ndena ndena mbax mu màgg moomu o wi alaa ko mbawɗen wadde sowona yettude allah moto ko amulluñumona def ludul sant yallah allah wino en la in chakartum la asidannakum o wi so tawi on manti kam mi ɓeydan on boolen ma sante rek ma dollilen ɗum waɗi pawɗen hen alhamdoulillahi rabbil alamina mo tax ñu teg ci baatu alhamdoulillahi rabbil alamin ha simore jettore allah nde joofi basar mi nga xam ne mooy bi ñuy sante yàlla ba mu ba mu mot nde noon woni pawɗen hen golle ɗe mbiɗen naaɗe ne gannaaw bi ñu jange muslo ci cheytan jange faade ba mu mot ñu daati ci teg nag jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñu tuddoon sànq o wi nde ɗum gasi nde bi ñu nappee ci loolu o wi ceeramen ceer mouhamadoul mouhtar tin o woni e yewtande en yewtere jiyaɓe allah mo tambalide ni waxtanal waxtanu goru yo allah yi o suɓi hen mo imam moussa guey wiyanno joni o mo daadi ci tan goor yallah bi nga xam ne moom la imam moussa guey don wax léegi woni maulana cheikh alhaje umar al fouti radiallahu taala anhu mo ganduɗa ki nga xam ne o haysin nako kanko tan goto wonno almuda cheikhana ahmad tijani nena don tan nekkon mom rek mom mawlana cheikh rajumul fouti radiyallahu taala anhu mom kesse moy taalibe cheikhuna ahmada tidiani o wi dum tan ma won dalilu cierno o fototako nena lol rek dana nek tektel nek firnde ni serign serignam bi amul morom o wi ɗum ɗon eɗen mbawi haalde hen haayaji nene ti anam gogu mum nanti huus waxtanete waxtanetami luyatu kono ɗo e nder leydi ndi wawi fiici wi rewmi en kalani caggal leydi ndi ni waxuñele nekk caga naw rewmi kala galle diine hande ɗo e nder leydi ndi beppu karu diine bu fi nekk ci wi rewmi ene qirri barke duwaawo makko nani o on galle nangu nañu deggal nañu ñaanu mawlana cheikh al haji umar fouti radiallahu taala anhu mu ngi desti kër woogu koye ɗin galleji tan garata mbiyaɓe cheikhu oumar ko ceerno moon ɓe mbelto ɓe jaɓa nena ci kër yooyi rek ngay duggu nga wax len yende cheikhu oumar sen sérigne la ñu daadi koye nangu contanti ɓe kalanma kadi e cheikhu oumar ka a meeɗa nande ñuɗaadi ley waktu cheikhu oumar lo xam ne yow muso ko dégg sax o wi on noon so haalama wadde ko jiyaɗo allah mawɗo haala e nder jiyaɓe allah ɓe nena koko no min ko tudde waktane ko kono nag dañu xam ne wax nañu góoru yàlla ci biir góoru yàlla yi on noon so haalama yurmende allah ene jippo koko no mun ko tudde waxtane ko yurmande suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dana wacci sabu o nani e nder haala makko ceerno mouhamadoul mouhtar tin nane ndax dégg na ci waxtaan moom ceerno mouhamadoul mouhtar tin sànq fa bi zicrihim tatanazzalu rrahmatu nee na dégg na ci biir waxam sànq mu tudd wax wii mu wax léegi usrud أسرد حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات o wi yewtir jeeyaɓe allah ɓe waktanel nitu allah yi te keewa kadi ko ginnata inɗe meɓe te nga barile ngay tuddu seeni tour o wi sabu fabi dicrim guir sababu fabi dicrihim jangtade ɓe nde tuddu mbigalega xam mbiga xam ne moom nga leen di tuddu tatanazzalu rrahmatu o wi wona rahmatu goto ala ko rahmatu kay kewɗi o wi fa bi dicrihim jangtade ɓe kamɓe jeeyaɓe allah ɓe nene tuddulen ñoom goori allah yoyo tatanazzalu jippoto tatanazzalu dana wacci to hadara allah to fewde e enen haaloɓe ɓe mo mbawi kocca hadara yo allah ñewci ñi nga xam ne ñooy waxtaan arrahmatu يرمند الله يرمند سني برام سبحانه وتعالى ويتاو كدي كو يرمند لمتي لمتين فك يرمند لا كو خامني دنج كو لم ديكو لم ديكو لمات ويدم نون او حالي يوتري اون جياد الله ما شاء الله تبارك الله موتاخ سانك وقتاننا مباخو غورو يالا بوبو ما شاء الله تبارك الله o wi sinno wonano ko rokka ko ene rabbide sede budul won linko mayon tan ci tan mo xawona gat mo o waɗanno kankone hono no yimre nde wiini momi dana def comme ni ko waybi waxe la akhbar al almasida an hada alwali o haalanno ko heewi ما حالن نكو هيوي اي اودا ولي الله هون مولانا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه كون نك دا وقتان لي بري كي غور يالا بي مولانا الشيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وي انن نكال دني هن اي بوري جامو او اي بوري شيخنا تجاني نيت ني دادي وقتانتي غنيلو غودغي اك غنيلو شيخنا o wi kono sa haali cheikhu oumar ko cheikhuna tidiane tan kalɗa nit bo waxtane cheikhu oumar cheikhuna tidiane rek nga waxtane o wi sa haali cheikhuna tidiane ma cheikhu oumar welto hen bo waxtane cheikhuna tidiane mawlana cheikh alhaji oumarul fouti radiallahu taala anhu dana ci contane o wi saabu ene jogotono sahaji nena danna am ay jamono شيخ عمر رضي الله تعالى عنه مولانا شيخ رجل مرفود رضي الله تعالى عنه omo jogii siira e siiraji ismullahi l adam amonna benn siira ti siira ismullahi l adam so jaggi gooto e ɗiɗon siiraji bo jappon benn ci siira yoyu tan o majjanno day mujje reer day mujje seedo ko gis هاي غوت واندا تاتو وني كندو خامفو مو نيك موم نيتو يالله بوبو ها كامبي وندي به ماكو به به غوني اي فايده با نيغا خامن نيو موجوندي نيك اك نيوم دي كوماسي جاخله دي جومي وي غيدو ما نون غوندي كي دما انا اندي كو ولاتما سا خريت كيغا خامن دا فاي فريكانتي شيو كوكو دانا خامن لي لا نيه سهيل مكو خولار مكو الفا مرتيرن بايلاني عندي o wi giɗo makko hoolare makko sehil makko alpha ceerno alpha oumar bayla ene andinomo ene andimo no feewi alpha oumar ceerno bayla ene andimo no feewi nena soppen boobu nitu yalla boobu di alpha oumar ceerno bayla xam na ko bu baax a baax o suɓo heen yoga e yimɓe mo daadi tan lenn ci nit ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon o wi jehee he oɗon biya ya cheikhana ahmada tidiane ɗemɗen rek ci weti gen di tudd tur wutedde windi wax ya cheikhana ahmada tidiane ɗo woni fof ma onoto fo mumuna nek moom cheikh oumar dana len woyu o wi soɓe gari ha ɗo woni e hadaraji ɗo tan bu ñewe ba fi mu nekk ci hadara yi soɓe mbi ya cheikhana ahmada tidiane bu ñu ne ya cheikhana ahmada tidiane شريف رضي الله عنه اوي شريف رضي الله تعالى عنه بتد مام شيخ عمر بعد بتد بين شريف رضي الله تعالى عنه اوي اونن سوتوي تشيرن موم حالام اومو ويلتو سان نين نيتو يالله بوبو نك بوكو تودل سيرينم مومي دنا كونتان لول اوي الحمد لله رب العالمين نغي نود اند سانت نيل نا يالله بي ني نوبي ني نيت سيدم مينم غيدم سهيلم ابراهيم sharif so o wi musidɗo makko giɗo makko miñiko hono ibrahima sharif so nena haritam soppem rakkam ndi ibrahima sharif so ibnu cheikh alpha mahmoudou ah, so o wi ko gando ko gandinowo woyjuram borom xam xam la teyit koye jangale la o wi kanko e hoore makko kadi ko hono noon momit tamit kadarika noon la mel ceerno makko ceerno meɗen ceerno saidu ɓantu guñataari geɗe kewɗe kewɗe kewɗe o wi o ronti e ceerno makko ceerno men ceerno saidu ɓan to kuña kaari geɗe kewɗe kewɗe kewɗe tawi donno nacci sérigne am suñu sérigne di ceerno saidou ban falecca kuña kaari ay mbir yu bëri yu bëri yu bëri sa yimi ndiyamo kalande ɗum kotti tan yo yim safine kanko kadi kalande o yi kam tan mo yima safine o wi sen ji so ceerno yiimo tan wiya yo yim safina walla kanko so yi ceerno tan o yima safina hakkille makko ruttoto koye oɗon bo gise buka ceerno gisene kono way safina walla momit mo gis ceerno mo daaɗi way safina ceerno nena xelam nde del watti goor yallah boobu rek yim ala inna faddan kana miladuhu sina ɗum ɗon kongol on dimgol ceerno seydo sakkita yimandemi o wi so wimo yo yim ala <laughs> innahu ألا إن فردا ألا إن فردا كان ميلاده كان ميلاده الثنا o wi ha aroya to radio so o gasirtoto o wi hakkille makko artata ko e ceerno saidou bande wonno ko ngol jimol o sakkiti yimandemo nena bo gise mu koye wax na woy bayit boobu nena gooru yàlla boobu de ceerno saidou bayit bi la mujj dégg ci gémmiña mu koy woye ko mawni ko magam la ko kawam ko kaw makko nijaayam la ko cierno makko serignam la kadi ko gido makko way tami soppem la kala nde o ari sa wi fo ñewe kanko fof e mangu makko mom ak limuy mage mage o ummato nokku makko de fay baye ko bërëbam o omo yooɓi safina ha o yeto e cierno muy jang safina ba yegg ci cierno radiallahu anhu yo allah ɓeydu weliyo makko e makko kanko non e maybe men e maybe julbe fof mom ak mom ak suñu way dawlu ak way dawlu julit yeb o wi yo allah yoɓte ko buri mojjude e jobdeede yalna la fay ji payor kadi omo wala tafsirul qur'an to pikinto to yiɗde de tafsiru alquran fale cappikin o wi macha allahu tabarakallah needi makko yaram ɗoftade mo ceerno makko e ɗoftaade mo ceerno makko ak topp sériñam e, e, e, e anndude mo jiidugol jiidugol ceerno makko e ceerno e anndugo anndude kadi jiidugol makko e kanko e ceerno o nena ngir xam gi mu xam li ceerno bokkak sériñam bi ak moom li mu bokkak sériñam bi e barke kadi moo heɓi e ceerno ak barke bi nga xam ne moom la jot ci sériñam e du'a u mo heɓi e ceerno o ak ñaan bi nga xam ne moom la am ci sëriñam o wi o meeɗa fuɗɗade tafsiru o so wona o nodda ceerno o wiya ceerno mbeɗe anniyi fuɗɗade tafsiru o hokkam hen yamirore musul tambali def tafsiru booɓe muy def ludul dana wo ceerno mune ceerno fasna yeene tambali tafsir ɓe wawi magi sakku ci yew ndigal argol noon mi yafimama ha hatmu o ñande jofata nde o wi arde noon mi yaafimama ha timmode nde nde hatmo watede gara wayinal jiggal nale ci tambaligi buñu deme nag ba noppi ba amul lu des ludul tej jamono joju nag mun nga ñëw hay ɗum ne kadi ne wata arlaw wata tampude jonde ha min jetto cimmoje daɓɓe ɗe ko wayno eywa ida jaa nasrullah en walla l'ihlas en gara o wi o wiya kadi ceerno horto arlaw hamin jippo e cimoje daɓɓe ɗe ko wayno ida jaa en sabu annde tampindema e jonde nde on saha puɗɗoɗa arde tawi tami yerem gimuy yerem ceerno nde wax ceerno bul teele ñewde mbayil bañu ñew cosaar yi nga xam ne ñoo gën a suufe lu mel ne ñoom isa dia nga ñëw fekk jotaay bi du yàgg ceew ngir bàyyi xel gi nga xam ne moom la bàyyi xel ceerno omo waawno waas de wadde ɗum hay batte bonnantaamu munoon na ko bañ a def to teyi du ko yàqal dara kono noon rokkude geɗal haɗataa geɗal waaye joxe cër du la xañ benn cër o wi rokkude geɗal heewi ɓeydude ko geɗal nena bàyyi sax joxe cër li mu faral di def mooy yokkal la say cër ɗum noon jasakallahu xayran yo allah yoɓe moƴƴere yal ne lella fay yo allah juutnu yal yàlla tamit guddal loolu yo allah ɓeydu yo allah barkin yalna yàlla dolli yalna yàlla barkel o wi hakkunde makko noon e imam musa nen digante makko imam musa o wi kala ko wi omo haala heen o tawat ene famdi lumu ɓogga tuddu ci digantegi rek ɗay feekne lol dafa tuuti o wi onon fof oɗon ceedi enen fof eɗen ceedi ko gando borom xam xam la ko ɓi gando domu borom xam xam la e kadi o nehi ko e gandal ci kepparu xam xam la yaro e o muyni kadi ko e joom geɗel tiborom certila cila nampo o wi alhamdoulillahi rabbilalamina yettode wodani allah leydi ndi foof ene ɗirrimo nena rewmi yeppu nangul nala o wi hay caggal leydi ndi foof kadi ene ɗirrimo batil nek gannaw rewmi tamit leppu nangul nala o kono noon so yi ceerno o anda ɗo fawata ceerno way bo gise ceerno du xam ban place lay tag ceerno tey ceerno wi min mi annda haaju makko te ceerno nen man xawma batay lam mooy soxlaam ko haajam e makko tan nganndumi man li ma soxla ci moom rek laa xam so mi wiimo subaka ko subako bu ma ne bu ma ko nee suba suba suba la bu ma ko nee ngoon la ngoon la so mi wiimo ko kiide ko kiide oo ɗo jamma nena guddi wi ɓuri duuɓi noogas ëpp na ñaar fukki at kala ɗo waawi wonde fu mu mun a nee e kala ko jagguno aglumumunote o etoto ha o ɓilto toon o ara ɗo dana def nune bamo teele teqali ko foofu pour mo ñoo fii oyi haynaani ono telfini ceerno basir sankre wona ceerno basir o wii wonɗo gonmi de amna fo mane de waye lumu guddi guddi guddi inchallahu taala danañoo ko hiiri hiiri fof komi garoowo omo wawno jogade gantu mo noon am ganta ko fawi e dow makko ko girli tagu ci kawlosam kono sen joɗorima dani ha suba ko janggo way buñu weyele toogue ni ba ëllëg o haɓata o heppata du yakkamti du yokkat o wi ko yidde waɗi ɗum cofel mo koye waral kon noon imam mousa ceerno mum lay wax jasakallahu hayran o wi enen foof kadi yo allah yoɓ en moƴƴere ñun ñepp yalnañ allah fayi hayra jasaihi ko ɓuuri moƴƴude e jobdeele makko liggan ci ay payoram o wi oumar diob e ceerno samba jaako e jigi jawara ɓen koɓe hunde wotere ñimutiddu ñepp nene ñom ñepp ɓenne mbirleñu ko kamɓe ndendi nder ndendi boowal ño bokku biir bokku biti kala ko ɓe nani e makko moƴƴere mboolem liñu deggi ci mom ci ay yiw eɓe mbelto hen no feewi ɗanen ci ɓeg lool ɓe meeɗa miijonaade mo goɗɗum ko wona ɗum ɓe ñaagaaki allah kadi nande e makko goɗɗum ko wona ɗeɗo moƴƴere nena musuñu xalaatci ceerno lenen ludul mbaax mi ak yiw mi te it ñaanuñu yàlla yit xalaatal ceerno lenen loo xam ne ludul lu baax ceerno wi kañumne ko hono noon e maɓɓe ceerno neno momi tamit niñu melti moom no mom tamit noon la melti ñoom rek o wi firnde muɗum yitere ene yaha ɗo koyengal yiɗa kono noon koyengal yahata to yitere yiɗa nena firnde bi moɗi ne bat munna dem fo xam ne tank bugg fo won dem way tank fu mu dem rek bata ngi àndak moom o wi te kadi a andata neɗɗo so wona nden ɗon haajo tawi do xam nit lu dul ngen bokko aajo walla dan ɗannoɗo do walla ngeen bokku tukki o wi alhamdoulillahi rabbil alamin haajuji ɗi ɓi ndendi fof ko haajuji allah e nelaɗo murme e cheikhuna tidiane ene santa ñelna yallah mbolem yi nga xamne musuñ ko sek ngir jemmi yalla ko yonentiɓe ak cheikhuna tidiane la lawol ngol fof ngol min jeehi ko lawol moƴƴere sabu ko juwiyade cheikh oumar walla juwiyade bat cheikh o wi kadi alhamdulillahi rabbil alamina laawol fof ngol ɓe ndendi ko laawol moƴƴere sabu ko juuroya ko juuroyade cheikh oumar walla juuroyade batta cheikh oumar nene mboolem yoonu tukku tamit bu ñu musa ànd tukki boo xam ne tukki yiw la lan moo ko waral mooy toppi jeexital mawlana cheikh alhaji umar al fouti radiallahu taala anhu ɗum noon ceerno wi yo allah rokku en barke cheikh oumar ceerno ngi ñaan ne yal nañu yàlla may barke cheikh oumar يا الله ركو ان برك شيخ عمر يال نني يالله ماي برك شيخ عمر يا الله ركو ان برك شيخ عمر يال نني يالله ماي برك شيخ عمر برك فاتحه وي غام برك فاتحه تيرو غير برك فاتحه اكو وني اي فاتحه اك لي نك تي بير فاتحه غام برك صلاه الفاتحه غير برك صلاه الفاتحه اكو وني ان در صلاه الفاتحه وي غام برك جوهره الكمال غير برك جوهره الكمال eko woni e jawharatul kamal ngam barke la ilaha illallah ngir barke la ilaha illallah eko woni e la ilaha illallah ak li nekk ci biir la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ko haalaɗo ko yo allah waɗ ɗum dewal allah jaɓangal mbolem liñ fi wax ci ay kaddu yalla na ko yàlla def jaamu yàlla gu ñu nangu o wi goto e meɗen foof haaju muɗum cuuɗiɗo e peeñiɗo allah woni kumtowo yo allah humtan en nena kenna kune ciñun sa aajo gu nebbu akko feeñ yalla e ki faja aajoyi yalna yalla faj mboolem aajoyi o wi ɓuri welde foof ko gurdam nen li gëna neex moy am dundu yo allah rokku en gurdam juuɗɗam yalna yalla guddal suñuy fan o wi ko yo nata gurdam ko cellal nene li taaral dundu nag mooy wér yo allah rokku en cellal ko suuɗi e ko feeñi yal na yàlla may ñu wér lu nëbb ak lu feeñ o wi ko welnata ɗum ko ko sutura nene loolu tamit wér tamit li koy neexal mooy sutura yo allah rokku en sutura jooɗɗo yal na yàlla defal ñu sutura gu rafet enen e ɓesnguuji men e ɓesnguuji ɓesnguuji meden ha ila yowmal qiyamati nena ñun ak suñuy njabot ak suñuy njabooti njabot be ila yowmal qiyamati yo alla rokku en hawrudde do o saha mo wuri kadi yalna yo allah worsagal ñun ñu dajewaat finagini dewen taw en ɓeydi en ustaak fek ñu ngi dolle ko suñu digeentek suñu suñu borom fek dara wañeekul jul ñu li nga xam ño wara wañeeku o humtana en haajuji men o humta kadi dendagal haaju mo haaju muɗum yowino e dew meɗen mo fajalluni suñuy aajo a keppu ko xamne tagonna aajom si suñuy kaw tamit yalna yallah fajalel koko tamit aajom o wi ko heddi ko lawol tidianiya barke muɗum ene yaaji nene li des nag wa amma ɗariga cheikhuna tidia nag barkem yaatuna e o wi caggal lasim e wadifa gannaw lasim ak wadifa أو يشير من شيخنا شيخنا أحمد تجاني أو يسنسر شيخنا أحمد تجاني أنا أو يمو كلكو وب كلكو جوجينو يو وب أجاك صلاة الفاتحة لما أغلق ينتبه يعني صلى الله عليه وسلم داري كي يوقن بولم لمتي يوان نكو باي مجابو جي صلاة الفاتحة لما أغلق أو يكلكو دور النومي الله بولم لما دون جامو سما برام كو صلاة الفاتحة وني دو صلاة الفاتحة موفكو فيتكو o wi salatul fatiha ala effet secondaire mom tamit amul li ñu xam li nga xam ne mooy effet secondaire kala no mbadirɗa ɗum ene jaabe noo ko mun a defee rek lu ñuy nangu la ko fam di fam di foof lu mu néew néew e nder ñalaw ma e ci bëccëg bi yaa wat e hay soko teemeɗɗe tati e sappo e tati lu mu néew néew ci bëccëg bi góor góorlul ba def ñetti téeméer ak fukk ak ñett o yamirama hen o yamirama hen o yamiri en hen yo allah waɗi hen fatu nena jox nañ ko ci ndigal momi tamit jox nañu ci ndigal yalla na ci yalla def fatu amin wonande bawɗo ñeel ki nga xam ne mën na ko o wi ceerno men ceerno mouhamadoul bachir yamirimo hen suñu sëriñ ceerno mouhamadoul bachir jox na ko ci ndigal حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه عين الله صلى الله عليه وسلم نويريني حي قوت عميدن إيمان مودن بالله وواصل لدي صونا ويدن مسيد مكو فدكو ويدن هوار مكو سو سبك سو كهير سو جم سو فجر نمبا ويرتا فف tinno mbaɗa temeɗɗe tati e sappo e tati nene limu fi wax léegi ngir laabe biir bi nga xam ne moom la ñuy laabe biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax kenn ci ñun ngëmam du mun a wér lu dul li mu bëggal boppam mu bëggal ko mbokki jullitam moo tax mu ne jox ñu ci ndigal ni ko nit ki mun a defee moo xam suba la moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam njolloor la góor góorlul daal nga def ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett kadi mbiɗa anndi kadi omo yiɗi on omo yiɗawi on so tawi o nani ɗum walla so tawi mi waɗi ɗum o mettinta heen kadi no omo omo yemiran ɗum mi yamiri onen e yamirore makko yo allah waɗa heen barke assalamualeykum aleykum salam wa rahmatullah o wi sen ji o yamiri en ɗum omo anndi ceerno ene yiɗi en ceerno ko giɗo makko kadi ko yamirta en mbat ko so ceerno tini ɗum ceerno ene welto heen ɗum waɗi kankone o yamiri en ɗum nene bo gise mo jox ñu ndigal ci lii ceerno mo ko ci jox ndigal تيت نو تيرنو ييغيني تاميت غير تيرنو بوغ كيغا خامني موم لاني بوغ بو تيرنو ييغيني موم جوخو نانيو سي نديغال نو داتي غانا كونتان رك موتاخ موم تامي مو يمالي فوف مو نانيو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا الله ركو ان حور دو او صحامو وري امين وفي كالن حضر مرتبات جوي صلاة الفاتحة دي اللهم صل على رسول الله lissa hen seeɗa o wi enen foof ndenden janggen fatiha salatul fatihi kollen allah haaju men ñudaadi won yalla suñuy aajo ɗo salatan tun jiinaɗo fa salatan tun jiinaɓe fof nan nder hen leppa ngi cibir ɗemgal mala ngal ko allah tan andi ɗum nene lammin mbi yalla de nanngu mom rek moo ko xam yo allah wat ɗemɗe men pop taw ko ɗem ɗemalade yalna yallah def suñu lammin yépp ñu nekk lammin yo xam ne yute xela eɗen jakori am nañu yakar so en duwima ma allah jaabu bu ñu ñaane yallah dana ko nangu o wi saabu oɗo waktu koye waktuji sulasul akhiri minal leydi koye waktu tataɓeyol jamma battiniɗo hen jeeya mo ganduɗa jomiraɗo subahanahu wa taala omo feeñane hen tagore nde waktula bo xam ne suñu boromi subahanahu wa taala danati feeño ay jamam yi o wiyeɓe e ɗemgal hoddiro makko mo daadi len wa mo daadi waka ñom ti lammiñu kattanam holi ñagotoɗo mi rokka ɗum ana kantiyen momay ñan man yallah ma may ko holi imsikintoɗo mi yaafo ɗum ana kuy jeggaluma jeggal ko ɗum noon enen fof en kucciti allah moo tax ñun ñëpp ñu ngi dëgmal juboog suñu borom bi subhanahu wa taala en imsikini en imsinima def nañu astahfirullah yo yaafo en bakkotuji men fof yal nañu yàlla jégal suñu bakkaar yëpp en ñaagi moomo ñu ngi koy ñaan moƴƴereeji makko ay mbaaxam ɗi o rokkata jeyaaɓe makko yi nga xam ne moom lay may ay gaayam yo allah yeɗi hen heen yal nañ ci yàlla wërsëgal warodde makko ayam nde o dandata ɓe bi nga xam ne moom la leen di musal enen ne yo allah dandu enen heen ñu nit yàlla nañ ci yàlla musal allah dandana en mu daal di ñuy koy musal suñuy njaboot o waɗa jam e leydi ndi mu def jàmm ci réew mi o waɗa jam e leydi he mu def jàmm ci réew mi o waɗa jam e leydi ndi mo def jàmm ci réew mi o waɗa deejre e leydi ndi mo def dal ci réew mi o waɗa deejre e leydi ndi o waɗa mo def dal ci réew mi o waɗa deejre e leydi ndi mo def dal ci réew mi o ñiifa kala fitna e leydi ndi mo daadi fay beppu fitna ci réew mi leyɗeele taariiɗe leydi ndi kadi mbo réew yi nga xam ne ñoo wor suñu réew kala fitna ɗo wonno hen kala ɗo fitna wonno hen feppu fi nga xam ne fitna jogon nafa yo allah ñifan en ɗum yalla ñi allah fayl fitna yooyu ha tengti e leydi men mali e rawate nak suñu rew miɗi rew mali ha tengti e, e leydi men burkina rawatina rew miɗi rew burkina ha tengti e, e leydi men niger rawatina rew momde niger e dendangal leyɗele goɗɗe ɗe mbo ak tamin mbolem yenen rew yeb kalano jamne arde ardata yo allah addirani en non mbolem ni nga xamne jam dal dana ko dikke yàlla nañ ko yàlla andile noonu taw ko do sutura e teddungal mu fek nag ci kaw sutura ak teranga jinnabe ardibe be suñu wayjur yi nga xamne ñoy ñoy way dawli wala walla maayɓe ardiɓe fof do mbawi wonde wala way dawli fuñu mëna bayé ko fuñu mëna né bayidi ko be julbe fek fekk ne ay julit lañu yo allah hesɗitin yurmede muɗum e maɓɓe yalno yallah be salat yirmande ɗum ci ñoom enenne yo allah muñan en ko juuti ñunit tamit yalno ñu allah muñan lu yagg eɗen ɓooya duwanade ɓe eɗen ɓooya sakkanade ɓe ñu yagg dilen ñaanal yagg tamit dilen sarhal bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam bismillah audu billahi min alcheitan arrajim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 سيادته دنيا وأخرى سنية وطلبته عن غير حق قلية وهبته فوز أتى وجنية أتى وزكاة القسير دونية ولا الوام يزدولي ولا الشك يطرأ تعالى هو المصطفى لا دبة يشبه دبه فمن جاءه يشكو يطهر قلبه بالفوز من لاده في النار كبه يتلي أهوى للقيامة هبه فحسبي ولي منه ملاذ وملجا ولله حمد حين أزربت هب ما يقربني ذلفا إليه وكذب ما ينولني فتى إليه وحزب ما أني إلى الفتى ما كان للغيب كو جاورت فالله ودي ويكله تال